may li may wax damay def précision fondamentale ça n'engage ça n'engage que moi ma casquette de politique PASTEF parti Ousmane Sonko est un réceptacle de financement occulte et étranger ah bon c'est clair net et précis on en a des éléments une multitude d'éléments probants ça un maintenant da nga le communiqué du ministère de l'Intérieur. Quel est le fondement du communiqué du ministère de l'Intérieur hein mm -hmm. Il a rappelé la loi. Et les sanctions qu'encourt un parti. non dama ne il a rappelé la loi xam nga loi bi lépp mi ngi ci li ñuy wax ak soo ko teggee li lay dal comprendre nga. kenn laam kenn werantewul que ministre de l'intérieur li mu wax ci loi ba xam nga yow da nga cité loi 1981 cité loi 89 mais am na lu gars yi fàtte avant ñaari loi yooyu amoon na la loi de 1975 et la loi de 1975 ah était encore plus draconienne parce que la loi de 1975 dafa tere woon les sénégalais de la diaspora di joxe sax ci parti loi boobu loi de 81 da ko abrogé remplacé ko loi wu 89 dafa modifié loi wu 81 mais Ousmane Sonko ak Pastef c'est des habitués des financements occultes venant de l'étranger alors bu fekkee ne yéen am ci seen collectif bi ñu def mais ñun on a des documents probants qu'il y a des étrangers qui ont contribué mais pourquoi doo leen génne. Euh, preuve yooyu xam nga le pourquoi xam nga le temps du journalisme euh, et la méthode du journalisme n'est pas euh, celle du gouvernant pourquoi on mën nañu wax ci loolu. yan preuve ngeen am. non on a des preuves c'est probant on a des preuves documentées mais da autre chose mais on a parlé de l'histoire Tullow ak benn ONG Ousmane Sonko mais c'est probant ça date de 2018. et xam nga. à la veille de la présidentielle. non di c'était même pas à la veille de la présidentielle. c'était en juin 2018. où il y a un document clair, net et précis où le directeur financier d'une compagnie pétrolière avec une ONG établie au Sénégal parle de leur accord de financer Ousmane Sonko. Et ça, c'est préalable à une réunion qui s'est tenue quelque temps avant en Afrique du Sud. Entre et plus et tard, en oh de, courant euh, on a constaté des mouvements de fonds ci njëlbéen bi après ci 1900 euh, ci 2019 on a constaté des mouvements de fonds dans les comptes euh, de la dite ONG est-ce que mën nga comprendre un État comme le Sénégal quand même qui a une tradition qui a une pratique le ministère de l'Intérieur peut se réveiller un bon jour comme si Antoine Diome tombait de son lit so génn benn communiqué wax waxu kasaw kasaw est-ce que est-ce que l'intelligence le permet l'intelligence ne le permet pas pourquoi depuis que le communiqué d'Antoine Diome Ousmane Sonko waxul waxul benn waxul waxul dara ñan ñooy agité wu ces sous-fifres là ñoo nekk di kalaw kalaw yi di wax pourquoi waxul benn affaire parce qu'il sait qu'on <laughs> mais dites-nous ce que vous savez. non mais ce qu'on sait. <laughs> l'opinion a droit à l'information. non non vous sortez un communiqué pour rappeler les dispositions. de la loi mais da ngeen war a génne. wax li nga xam ne moom moom ngeen xam. ne Sonko li ma la wax ni ci ay firnde yu leer. man mën naa wax ñu juge ma que dama zélé wala dama ëppaloo la consort mais du ma wax ci ay waxu ay ay ay waxu sos du ma wax ci ay waxu sos seen collecte bi ñu def bi indi wax bi ah mais les preuves sont là documentées qu'il y des étrangers qui ne sont pas des Sénégalais qui ont contribué ça c'est un muy benn benn avant boobu ah y des preuves probantes mais peut-être pas euh, suffisante pour attester que Ousmane Sonko ah am na comme compagnie boo xam ne bokkul Sénégal et pour même dire compagnie pétrolière boo xam ne n'avait pas intérêt à ce que euh, euh Macky euh, jiite ci jàmm ak salaam ah méngoloog benn lu ñuy wax ONG ah, pour financer ko on a les preuves probablement musu ko weddi mieux mais am na benn taskatu xibaar bu taxaw fii wax ne Ousmane Sonko jàppale nañ ko bu jógee bitim réew ci nangami million est-ce que weddi ko donc il faut que nit ñi ba defe ne di dañuy dégg politique politicienne état du CAF Antoine Diome c'est le ministre de l'intérieur mais il na confond pas sa personne ou bien peut-être ses sentiments ou ses ressentiments envers Ousmane Sonko di ko jaxaseeg état li ñuy def dañ ko teg fu leer. Ousmane Sonko li ñuy wax na ko na génn def conférence de presse xam nga moom réponse automatique ci loolu la gaaw na ko na ko weddi mais simplement signal bi ministre de l'intérieur def xam nga nan lañ ko war nan lañ ko war comprendre ah on ne va plus tolérer que ce qui s'est passé parce que moi à mon humble avis sama niveau bi ma toll je pense qu'on a été trop laxiste et trop tolérant vis-à-vis de Ousmane Sonko parce que soo xoolee discours Ousmane Sonko may il s'attaque pas à la l'APR il s'attaque pas au parti socialiste ah il s'attaque pas au Benno Ousmane Sonko ak ñoñom yi seen stratégie c'est s'attaquer à l'État c'est s'attaquer à la cohésion nationale cohésion nationale mooy lan déem suba nga wax fi Casamance tey nga jéem ci dañu la rappeler benn disposition ay loi nga bëgg a féewale sénégalais yi nekk Sénégal ak diaspora